Cheikh Baara Ñaan borom def gis sama waa na namoon naa ko réew mi namoon nañu ko sëriñ bi boo ngi lay nuyu jële ziar jële ndokkeel bàyyi la nga nuyu nga saan sur bi pro ak Bourguiwel aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lasi kanil man naan allasi akramana bil quran wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu waa àdduna bépp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel foo ma di nekk ci àdduna bi lu mu jege-jege ak lu mu sori sori ñu ngi lay fekk fa nga nekk di la wax asalaamaaleykum di jotee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou Serigne Mbaye Sy Mansour Cheikh Mahi Niass di baax a baax a baax mboolem koo xam ne yaa ngi ci liggéeyu yàlla bi ci kaw suuf foo ma di nekk ci àdduna bi lu mu jege jege ak lu mu sori sori duni bu baax a baax a baax waa Rwanda ak waa Tanzania waa Kenya waa Mombasi waa Freetown waa Nigeria di nuyu waa Ibadan Kalaba Kaduna Saria di nuyu képp koo xam yaa ngi bàyyi xel mm-hmm. di nuyu baax a baax ñoom Oumou Ndiaye di nuyu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi siifu daal. Mhm. ci gàttal rek bisimilah. Cheikh Bara coow li coow li sa yoon mus ci nekk bokk ci muy coowul Coupe d'Afrique Sénégal toog na Serigne Sepp ñu ngi leen di vaar ay punkal nag ñu ne woon Sénégal day dóor ko d'Ivoire 2-0 ñu ne woon Sénégal <laughs> day dem day dem final Cheikh Bara dañu gis ni que jamono bu ci nekk bu yooyu amee sax yooyu intéressé wu ko. waaw alhamdulilah rabbil alamin xam nga football moom bu dee xam nga. tàmbaliment bi xam fi mu yem te nga xam ko doo ci dugg mm-hmm. ndax yaakaar naa bala jàll gën naa wax ci la ma ca wax bu ma ko waxee gis nañ ko nañ ko gisee mm-hmm. bi mu agsee tamit ñu bari woon nañ ma fekk nekkuma Sénégal mm-hmm. man bëkk dem laa ñëw ma ne leen lii gisoon bu yàgg fekk boobu maa ngi woon euh, Kinshasa élection yi nekkoon bëkk dem laa ñëwaat Sénégal moo tax ma ne la mbépp mbir nit sëriñ bala muy wax dara na xool ba xam li muy wax lan la ba pare mais gént boo génte Sénégal gagné mën ngaa xëy gént gi yàlla soppi ko mm-hmm. boo seetee lii am mën nga xëy yàlla soppi ko mm-hmm. ndax yàlla moo ne inna allaha la yuxayyiru ma bi xawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim chaque chose en son temps dëgg la kon ko neex mu def ko mm-hmm. kon bu fekkente ne sëriñ si dañ ko teg ci xam-xam dama koo seet seet ki mën naa tourné wu biddiw bu ne waxtu bu ne saa su ne jamono ji ne time bu ne kon bu fekkente ne ñoom dañ koo xool ci gént rek gént mën naa soppeeku mën ngaa gént Sénégal gañ mu def version bi ak waxtu ko nit ki gént ak li mu yu mel noonu moo tax ma ne la képp koo xam ne wax nga bu dee xam-xam lañ ko teg wala ci gént nañu si bañ di wax lu amul ndax ab sëriñ warut a wax lu amul. Mm. lu ne ba mu des fen. salaam. Mm. ab jullit mën ne ba mu ah, loo xam ne amut. Mm-hmm. bu dee ci olof la kàcc lañ koy tuddee. ah <laughs> dëgg la ñoom ñu koy tuddee bu dee ci olof <laughs> lañ koy tuddee. wax lu amul daal bu dee ci olof kàcc lañ ko tuddee bu dee ci bambara am nañu koy wooyee bu dee ci séeréer noonu bu dee ci français noonu bu dee ci english noonu kon ab sëriñ du wax déedéet parce que bërigo bu fees di yëngatu waaw dëgg la de dëgg la de ab xandi bu deful dara day mën naa kolong kolong waaw moo waral coow yi nga gis yëpp ba ci politicien moo tax ma ne la candidat yi bari na may xàññ daal moo ci ëpp xàññ daal sëriñ baara man mi la xam léegi nga def ci ñaan plus de trente ans macha allahu rabbi musul lu ñu la laam-laamee wala ñu lay ci dara ci loolu dugal sa làmmiñ yàlla sama borom noonu nga ko waxee woon noonu la koy dogalee. waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu. juddu la wala xam-xam. ñaari mbir rek la. non du juddu sax parce que bu doon ab juddu. Mhm. yéen bi sallallahu alayhi wasallam am na ci ay sëtam yoo xam ne ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne seen i maam yu baax lañ. te mhm. ñu def nangam ak nangam leneen ndam. Mhm. ndax ab judd moom. yaa ngay gis ñaan la yax bu rëy. yax bu rëy amul ñëpp seen yax dafa rëy. dëgg la. li ci am solo mooy li ngay def nga xam ko xam li nga war a wax xam li nga warta wax xam li ëpp wax. Mhm. loolu mooy àdduna xam li nga war a wax ak li nga war a wax ak lépp wax li nga war a wax wax ko li woo war ta wax nag noppi ci lépp wax mhm. nag moom bu ko wax ndax boo ko waxee ñëpp dar dëgg la bari na koo xam ne mi ngi wax boo waxee dugal boppam dugal ay mbokkam mhm. alikalaamu tan boxu wax dafa nekk loo xam ne lu doy waar la ci sëriñ rawatina même bu du sëriñ sax dafa baax da nga dégg-dégg ñu naan la ndo teey baax na ci ndox la baaxee mais ci nit la gën a ci la gën a jekkee ndax ndox bu ne tekk daa am ay cers yoo xam ne day dox ci ndox mi lan moo tax nga ñëw ci sëriñ sa biir di metti nga ne ko sëñ bi ñaanu sëñ bi jël ndox ñaan ci ndox mi ndox mi la faj wala li wax la faj waaw ah, dëgg la de parce que mi mooy communiquer ak li sëñ bi wax mm-hmm. comme exemple eh, bi met nga ñëw jàng la waan sana xasal xuraan xalaa jëmale to xaas mu sanaan ba aaya ba jeex tifle ko ci ndox mi jàng ci ñetti jet boo ko tiflee boo ko naanee li biir sedd léegi ndox mi ma nga kii moo la wala kii ba te ndox moom moom ngay raagoo mm-hmm. la ngay raagoo moo la faj wala yow ndox moomu la ñuy raxasee ndab moom la ñuy defee leen rek leen kon la sëñ ba wax moo la faj dëgg la kon loolu lépp dafa nekk ci alxilmu wal adabu ci la mm. nekk mm. mooy nit ki dafa war a fekk ba sàkku xam-xam sàkku xam-xam nag du question dara day am nga génn wax dara nangam génn wax dara nangam génn wax moo tax man lépp loo xam ne wax naa ko ci adduna bi ci mm. internet lu ma xam lay doon te lu ma jàng lay doon lu ma juddu mm-hmm. ak xam-xam dañoo wuute mm-hmm. mun naa juddoo fu baax doo am xam-xam waaye sëriñ sëriñ nga waaw loo ci loo ko nekk nekk nekk nekk nekk mm-hmm. ngaa bañ a xam dara dëgg la d'accord naa na xam-xam da ngay dégg ñu dama koo donn xam-xam kenn du ko donn das koy jàng da koy jàng mm-hmm. ndax bu fekkee da ko donn sa maam ji daa jékki-jékk di ubbi sa bopp def ci xam-xam déedéet mm-hmm. bu di ne ay kafiyaar la wala boog ay weyn dara mooy këy duñ teg nii mm-hmm. am na ceyri yoo xam ne mën nga ko jël feeg fukki at a juróom boo defee du jàpp ndax ko ci ndigal kon boo duggoon sama ne gis ay këyit xaatim bi day day noob nit nga jël ko rek fotte ko def ci xaatim boo noowee du jàpp dama ci def code man sama kër gi wifi bi li mu nekk yow boo taalan sa téléphone gis wifi bi pour nga pour si wifi faa ma jox bi. foog nga jox ma mot de passe bi. waaw mu soog a jàll su ma la jox ma mënoo pexe pexe pexe pexe ba dugg ci sama wifi te jox ma la code bi. mënoo fexe ba dugg sama wifi jox ma code bi sëriñ bi dëkk baa ngi riir élection yi dinañ ko rapport sëriñ bi dëkk bi yëngu na Karim Wade génn nañ ko ci élection yi parce que double national ci la am ci li Thierno Alassane Sall wax conseil constitutionnel tracé ko moom nag dugal na benn commission d' enquête parlementaire ba gagné ko. bu fekkee ne jàll na comme ni ko yoon prévoir élection yi dañ koy pousse. waaw Karim nag man nag xam nga du ma watal koo xam ne nekkul ci réew mi boo bëgg jël réew mi da nga bokk ci réew mi. doo watal ku nekk Dubaay. déedéet na ñëw ci réew mi. ah waaye sëriñ bi demul Dubaay coobare boppam. ma ne xam nga boo bëggee jël réew mi. Hmm. danga nga ñeme kaan yi un. waaw ñëw ci Sénégal yi fi nekk nga ñëw da bëgg a jël réew mi. waaw mais sëriñ bi bañu ta ñëw nag. mais doo toog état ko fa yóbbu. waaw xam nga état ko fa yóbbu dafa am lu ko fa yóbbu. waaw léegi buy ñëw nu muy ñëwee. kon lu muy jëlee réew mi ku nekk ca gott ba. ngeen jox ko réew mi Sénégal. daa mel ni Amadou Ba ngay ñaanal de. wàcc daanoo ci gën a gaaw. Euh, waaw xam nga man. li may ko wax. waaye sëriñ bi sëriñu ponkal yi ñaareel ci boppam. doonte ñëpp laay ñaanal senegal ngi Sénégal am jàmm. képp koo xam ne bëgg nga Sénégal jëm ci kanam dama lay ñaan a jàmm. waaye sëriñu sëriñu ponkal buy xëccoo nga. muy Amadou Ba mu ñoom ñëpp jàmm laa leen ñaanal. Hmm. mais nag du fekk koo xam dañ ko tooñ tooñ bu na weng ñëpp teg seen bët kooku laa jàpp yonent bi nee boo jàppale jàppale ki gën a doole kon Bassirou Diomaye Ousmane Sonko nga jàppale waaw ndax boo jàppale xoolal ki nga xam ne dañ ko néewal doole nga jàppale ko donte tooñu dañ ko néewal doole kooku nga jàppale nee na ab jullit dëgg noonu lay def mhm. waaw waaw Cheikh Bara man dañ lay woolu fu bari sa tukki bi mën naa ci révéler ay nom mhm. sa digganteeg yi mhm. RD Congo sa digganteeg Paul Kagame sa tourne bi yëpp ba ci Libéria li nga fa lijjanti ji woon dem xeex ko mooy évaluer élection te yàlla defal na la ndam ci xeex yooyu yëpp nga duggoon sa relation ak Afrique centrale boobu. waaw alhamdulilah xam nga euh, nit moom. mënut ta wax lépp Sénégal dëkk borom xam-xam la. dëkk mm-hmm. xam-xam la Sénégal. Mm-hmm. bala nga ko xam da ngay tukki génn. maa ngi nuyu baax waa Rwanda. Mm-hmm. waa Nyamirambo fa la Sénégal yi bari nekk. du ma tudd ay tur euh, di nuyu baax waa Remira. ca ca Kigali. Mhm. di nuyu baax a baax a baax ba nga xam ne waa Tanzanie. Mhm. Euh, Magomeni euh, Kindanoni di nuyu baax waa Bujumbura di la mhm. nuyu tamit. di nuyu baax waa Afrique deuxième di nuyu képp koo xam daal sama tournée bi gisante nañ ak ñi ma bëggoon gis ñu ma ndax yàggu ma woon. moo tax man alhamdulilah li ko waral mooy dama am couleur bu seq ak ñoom lu yàgg. couleur boo xam ne couleur rek euh, ngor la couleur sëriñ la ak taalibe. couleur lañ jullit ak ñu donte ñëkk ñu ay jullit sax ñenn ñi. mais am nañ jëflante bu rafet. ndax mm. xol bu sel rek mooy ki nga xamee ne yàlla bëgg na ko ci nit xalbin salim waaw yowma laa yanfahu maal wala banuuna illa man atallahu bi xalbin salimin mm-hmm. kon yàlla borom xol bu sel ak borom xol bu rafet ndax loo mën am ci àdduna te amoo ko amoo dara kon nag mm-hmm. loolu moo tax suñu jëflante ñoom bari fa rek ñu demoon fa def ay mbir yàlla may nañu ndam alhamdulilah ñu demoon fa xeex ci élection yi wax ji day leer sëñ bi man man sëñ bi man du ma jëf ak tàppet man yow xam nga sama jikko suuf laa suuf laa ci kaw ak ci suuf loolu jeex na alxuraan nee na mm. boo bëggee fii tani kaw allaahi kalimat laay mhm. mhm. mhm. a yëkkati ku a suufee allaahi kalimatillahi xulyaa si mun taxaa kay kon na bi nag bu mu laal suuf allaahi kalimat laay loolu secret boobu boo ko defee ak ku mën doon ci àdduna bi day toog fi mu bëgg bu dee musicien la day yëkkati ko sëriñ day yëkkati ko politicien day gagné force yàllaa ko wax ci alxuraan te muy secret bu wér seen secret moom nu koy liggéey yëkkati nit wala gagné loo ko ab xëccoo loolu da toog bind xawaatimu murabaha mhm. ubbil ko bayti xaal xawati mi nag day wax mhm. jàppee dëgg day wax day kasara nga xam ne lii kasara na mhm. nga bind lu wërale ko la ma xanaa jaxala maxtaxtil xaxtaxtil naxtaxtil jaxtaxtil daxtaxtil jël doomi sam xurus yi boole ko moom sam xurus jinne ju mag waaw nga boole ko karafil karafil mag ñi dañ ko ragaloon ba àllarba ba àllarba la nga daan jàng ci at yan ñun nag comme jamono ji soppeeku na ñun yor ci ay bagage yu doy war mooy allahumma inni asal ko bi xamati karafil yéex yaa yaa yaa maanaam dund na ba sakkat yàlla yàlla yàlla fa mm. la jeexee bu la neex nga boole ko nga jël ko pare boole koog kun saale Mohamed wala Mohamed siri sigi saara sigi an fa laa xab naam neen yu ma jàpp naa baaba maaha bif mi jàpp naa gëm noonu tubdil jablil angombe mi angombe kali diw nangam nangam nangam nangam nangam du ma ko àggale ndax sama mbokki ñeneen mm. ñi dañ <laughs> ko dégg ne sa waay li mu wax dëkk daa mm. léegi nag boo ko àggalee pare am na loo koy booleel suufu wel wel waaw maa xam wel boo ko boolee mu na lu lay jox nga toj ci kaw gileem sa ngokk ci kaw gileem looy nekk lu bëgg a siiw da ngay siiw force. kenn mooy xëccoo ci jot. <laughs> ak a <laughs> ak yeneen yeneen yoo xam ne du ko mën a wax ci euh, télévision yoo xam ne du bind ay mbir la. Mm-hmm. du bind nga dem ba ci garabu guy jël guy gi nii man ne ko ku ko lëng. kott guy gi. waaw fi sa loxo yi yem nga dagg ko xas ko. Mm-hmm. boo koy xas nag da nga koy xas yi alam nasaraan. la kas dara mais boo wax alam nasaraan doo wax kay yi kay yi doo ko war da dindi kay yi. Mm, keef yi du benn ci bopp. da ngay fexe mokkal ko nag boobaa wala boog sëriñ bi xam ko mooy da nga naan alam na sara la sadra wa wadana han wisra allasi an sira wa rafana la sira fa inna mal xusri sa imaanu sira fa sa farta fan way laar bi farxam xam wax naa ko te tëruma kay waaw nga jàng alxaarixatu alxaarixatu boo ko jàng alxaarixatu tu yi doo ko wax ba alxaarixatu ba jeex hmm. nga commencé bàqara ba mu ne jamoon naase bàqara boo commencé da nga ñëw ba ci àll ximraan hmm. fan su naa xam keef nga yem hmm. ba saar yëpp jeex saar woo àgg rek aaya bu mujj ngay bind ci alxuraan ba mi a jëlee woon naa si nga def bàqara himraan nisaa maayda lan xam lan faal tawba yunus hóod yus ba banaas <laughs> loolu dafa du sekkar bi da nga dax gis moom buy wax ci xam-xam attentivement booy dangay ci xam-xam waaw xam nga da ngay feex quoi loo mën rek doo ci waaw yi ay bagage la yoo xam ne xam nga dafa am na yoo xam ne xeeti ñetti ndomb yu wuti la mais lee def ma ni reenuk salaan la wala du reenu salaan ko tudd moom ndax ci réew mi lañ nekk lu tax waaw ndax yoon naa xam-xam yoo xam ne ba àddina tukki ñu duñ ko xam ci man lii ci lu muy dox léegi man dama ko danaa la wax waaw li muy ma ndomb ak dabe ndomb ak dabe jàpp nga ne yow trop tard ndomb ak dabe ngi nii bii boo ko takkee lépp loo xam ne mu ngi ci àdduna li gën ci yow yàlla da ko indil moo xam kayit la moo xam lu mën doon ci àdduna ak looy déposé yu mel noonu kayit noob nit bëgg a jiboog nit ànd ak nit wërsëgu ubbeeku rab noob ginaar gi ñu tënkee sagar bi ñu tënkee ginaar mhm. bu xonq man ci laay noobee nit doo rey xar doo rey daar ginaar bu xonq mais sëriñ yow yor nga yeneen xeeti xam-xam yoo xam ne du yi waaw yéen di lu mu wax xam-xam boo gis am na xam-xam bu ko gën a kaw ko fa xoog ku li sa xam-xam yoo xam ne toog télé ko xam nga yenn yoo xam ne de du ah, xaatim ah sulhil mi xalimin waaw mën nga am xam-xam bay toog ci jaww ji mën ma ñëw na loo xam ne xamoo ko maanaam am nga yoo xam ne moom du mu salas du wal kuntu du mu raba am loolu ay baat la ay nangam jël diwtiir def ko ci lii yu garaaw yëfi africain ñamaka la ci noob rek diggante góor ak jigéen ganaar bu xonq boo ko jëndee guum gi ko yeewee tànk yi nga rey ko mais doo tekki tànk yi boo jëlee mm. tànk yi sagar woowu koo ci noob ñetti fan mu ñëw xanaa da nga koy boole ay jal waaw ay jar la def ko yónnee la ko nga teg ko sa bunt néeg faaw ndaw si ñëw. mu koy neex ak mu koy naqari. bu faaw mu ñëw bu fekkee na nga nekk mu bëgg mu gën laa bëgg am na lu ma lay jox loo xam ne boo ko raxasoo laal ginnaaw gi ndaw si dootu demati ba nay tukki. <laughs> amul sangu amul dara amul sangu. parce que Cheikhoul Khadim amul sangu da bëgg loo wax nit ñi ne waa wutal bantu bantu mbattum kéwél. Mhm. nga wut xorom def ko ci moo wax la jat yi nga wax ko tifli ko ci bàyyi ko ba ñetti fan nga dem ci géej suul ko fa tëj ko ñetti fan nga sulli ko boo ko soccoo loo wax ni mu def da bëgg jaaro boo xam loo nuyu nit mën a waaw loo nuyu nit mun a waaw loo nuyu nit mun a waaw wutal ginaar gu weex tàll wut ci ñetti dunq ginaar gu weex lakk dunq bam ba mu nekk sunguf mhm. boo ko laqee nga ubbi jaaro bi mais boobaa euh, li li si des dama ko wax ndax dafa xaw a doy war mhm. am na fooy toog toog def loolu ci biir jaaro bi boo ko ci defee ak la ma lay jox yow nga raxasoo ko jaaro bi loo wax ni da koy def du teg baat bu dee da ngaa bëgg romb nit te du la gis nga na mes romb du la gis wa jaxal naa min bayni aydihim saddan wa min saddan fa axsana fahum laa laa laa laa juróom-ñaari yoon ngay bind mm-hmm. boo ko bindee am na neefarey mm-hmm. neefarey giléem da nga koy dëbb mm-hmm. nekk sunguf neefarey giléem am na loo koy booleel boo ko raayee ci kanam boo jëmee nit ñoo xam ne dañ la ragal duñ la gis duñ la bàyyi xel dangay ngay romb ba pare ñaan sa waay kañ la fi jaar gisuma ko <laughs> kii du nit sëriñ bi jërëjëf. man maa la woowoon pour ñu waxtaan. doy ah, na tey moom yaa ma forcé ndax xam nga. waaw sonn naa lool <laughs> ah, <laughs> tukki bi métti naa. ak yu bëri bëri mais dafa am lu ma bëggoon di feeñal rek. jamono bu ci nekk dama naan mën buur sama plateforme. Mm-hmm. du xaalis moo fi tax a feeñ dama koy wax borom xam-xam mooy li ma ñor bi ñu dalee àndi liggéey li léegi moom ëpp cinq ans waaw ci lii la nga xam ci xam-xam fa nga mm. dëkkoon nga dëkk fa nga mm. ne nga ne ña nga daan ànd nga fa nga daan dem nga daan la nga daan def ngay def même client ya nga daan ñaanal ngay ñaanal loolu yàlla def na ko waaye loolu li la ko may nag mooy xam sa bopp alhamdulilah ndax ñàkk xam sa bopp wóorul ku ñu tudd tudd sa moom Lamine mm, ah dëgg-dëgg nag da nga war a xam sa bopp te macha allah xam nga sa bopp sëriñ bi looy wax waa Kinshasa <laughs> waa Burundi waa Rwanda waa Libéria. seen làkk seen làkk dëkk bi rek comme naan eh, seen làkk dëkk ñuy làkk Swahili. waaw Swahili Swahili. Mhm. da ngay dégg ñu ne Amakro. nga ne ko mhm. ñemee saa <laughs> <laughs> seen nag boo nee bu ma dugg ci euh, marché bi di jën uh-huh. ñu ne la euh, euh, sorry seen làkk xam naa ne xaw naa ko dégg tuuti mais bëriwut. Uh-huh. Uh, <laughs> Swahili waaw Swahili uh-huh. waaw. na di leen nuyu bu baax a baax. seen làkk dëkk nga xam ne nit ñu baax lañ waa Tanzania. di nuyu waa Zanzibar. ñoom ña fa nekk ñëpp ñoo xam ne. sëñ bi fi mel yaa ngi toog la ngay toog nag. waaw alhamdulilah maa ngi waaj a tukkiwaat nag mais damay ñëwaat senegal ndax xam nga mais. fa ma nekk ci àdduna bi whatsapp bi day dox. dëgg la soo wootee nga jot samay secrétaire ñu yor. waaw ñoom ñëpp ñu ngi fi waaw ñu ngi ci kër gi ba tey alhamdulilah. Mm. ndax liggéey bi mi ngi doon continuer dox dox macha allah. waaye sa mbokki laa ni seen appel bu ñu woon pare ñoom <laughs> mm-hmm. ndax foo xam ne def nga fa ñaar fukki at ak ñett ci ren. 23 ans. ci Cambérène. Mm-hmm. ñooy man. Mm-hmm. maay ñoom. damay toog bi ma ñëwee ma xool tëli yi ma ne jàmbaar la liggéey na mais xëy na ñi mu àndal ñoo tax sénégalais yi ñu bari bari kii mais Massaly mm. génn mm. parce que damay xool ne man sama gardien bi may dëkk fii de suuf la woon dëgg la dama fi daan càng nit ñi di pousse sama oto xoolal tey boo fi jaar tey lépp tali la mm-hmm. Mm-hmm. ma rompoo Cambérène bi man ne leen Cambérène de fii suuf la woon bi ma fii dëkk mm. xoolal tey nii mais moo tax ma ne yàgg bawul dara dëgg la nit ñi ne ñaan gudd fan ak wér maa ngi joxe benn secret boo xam ne dama koy joxe ñëpp ñu gudd fan ak wér mm-hmm. xam nga dugub bi njëkk sax ci àdduna du dugub bu suuna wala pepp dugub bu mbante fii la mooy dugub bi fas yi lekk moo hmm. njëkk sax ci àdduna hmm. kuy bëgg dund téeméeraat da nga ci wut téeméeri doom hmm. soo wootee xale yi dinaa wax képp koo xam ne woote na ñu wax la la koy boole la nga koy boole da nga dund téeméeraat mooy boo koy lekk nag du laal say bëñ da ngay koy warax da koy warax mais ndaxu sam-sam nga koy naanee billaahi la si laa ilaha illa huwa ku ko def di nga dund téeméeraat ci kàttanu yàlla ndax yàlla day rey nit mais cat dina rey nit nit dina rey nit dëgg la dëgg la xam naa ko li ma wax am na ci benn dëkk foo xam ne fii ci bene boo bëggee faat nit léegi léegal la ñuy def sot sunguf si lu mu am gàllaaj gàllaaj dañ koy yàq ba pare yàq gàllaaj gu nit li ci gën a gaaw mooy reen keng nit am gàllaaj nga ne ko tël gàllaaj jën ma tël toj hmm. nga def sunguf jàmm mu dee fa saasa kon xam-xam am na nañ ji muslu tey ñaan yàlla tey jàmm yàlla tey fonk njàpp di hmm. julli di fexe ba di maytu lu baree bari hmm. te reenu euh, euh, euh, fii la googu képp koo xam ne am nga ko dinaa la jox secret boo xam ne soo ko defee ci kàttanu yàlla nga gudd fan di macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam